cee ñëw bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu dey suñ ko mënee waxee noonu kii di ko du juuf di ab responsable apériste fi ñëpp ragal moom song na ko te daan ko mooy bayaalu bi nga xamante ne moo nekk ci kanamu stade Caroline fay ndax jàpp nañ ne feesal na ko ba mu ne muut lu jafe-jafe ay nit joge won fépp ci bir département bu Mbour ngir wuy si ki nga xamantene mom moy inspecteur des impôts et domaines ci Ndakaaru nek tamit responsable politique fi ci diwaanu Mbour ñu japp ne ki nga xamantene mom moy pap Makodou Diouf mu ngi wax fi li tax mu and ak Macky président Macky ku jara jappale la. moy lamb daj. geestu gis kan moo koy attaqué ci réalisation kan rajo yi télé ñu ngi dégg chaque jour ah mon dañ naan ne montage bi dañ ko dañ ko defee nii et cetera réalisation kenn ñemewu ko wax ma na gars yi ñeme affaire bi na ñëw sëgg ñu bëre bëre bi au soir du 24 février ñu duma leen jëlaat réew mi teg ko ci yoon waaw ku lekk avance dina bëri dañuy sëgg de ñenn ñaa ngi suscité naan nañ reporté élection yi doo am de doo am le 24 février heure bi ah. fii la ñu nekk di fecc tegaat président ca chaise ba mu toog doxalaat ah. di dimbale di dimbale neew si doole yi di joxe bourse familiale di joxe bourse familiale di renforcer PUDC e ña dëkk ca àll ba ña dëkk ci àll ba dañoo yàgg am problème mu ndox yàgg am problème mu yoon yàgg am problème mu électricité et et cetera mu indi PUDC tegal ko teg ko ne dama bëgg ngeen dem toppatoo la xew ci àll ba parce que lépp dañ ko jëloon concentré ko fii muy diggante Dakar ak Thiès moo tax mu teg PUDC yóbbu ko donc ci àll bi mu ne at Il y ñoo des duñ fonctionnaire am na ñoo fonctionnaire par exemple fonctionnaires yi une prise en charge mu ne naa ba le maximum de population en prise en charge muy couverture maladie universelle nit ñaa ngi wax jafe-jafe yi ci ils ont dit kenn waxul ne dafa bon vraiment suñ doon donne doon livre du président wax fi encore une fois nous sommes déterminés pour continuer à travailler sur le terrain parce que c'est la seule voie réunion yu bëri yi wax ju Djaroko, ji Manamana, jarul président moo soxla nañ ci taxaw ministre directeur de cabinet ñu ngi lay gërëm ci sa nous ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kii di Pape Makodou Diouf yemul foofu mu ngi dellu si ci c'est à partir de 2011 en réalité lañ commencé le président euh, au niveau de l'alliance euh, pour la république APR Nous ñu commencé d'abord par adhérer à la cellule des cadres républicains donc par le biais d'un ami euh, qui est dans le parti en l'occurrence Pape Samba Diop. Euh, qui m'a invité en 2011 à y adhérer jàpp sama loxo yóbbu ma ba ci cadre yi fi doon réunion et ma commencé nag di fa dugg parce que euh, politique moom mosul nekk samay affaire je ne me suis jamais exercé à cela donc période boobu lañ commencé di fa dem di dem ba président ñu accompagner parce que biñ gisee mu génn ci PDS ak li mu subir yëpp ñu également les valeurs essentiellement sénégalaise moy valeur yi nga xamné ne képp ku ko gis ci nit dañ ko naw mu ci ñu gis na commencé en 2011 euh, ci canal nak lañ commencé won di dem di dem di dem di gagné euh, élection yi ñu euh, maintenant c'est à partir entre 2015 et 2016 j'ai eu un frottement euh, un peu dans, dans, mes activités politiques parce que je me concentrer dans, dans, des, dans des projets personnels. Donc c'est à partir de 2017, euh, avec ma rencontre, euh, avec le ministre directeur de cabinet, maître Elage Omarium, euh, invité Watman, cadre, il ne faut pas laisser les terres politiques aux autres, il faut venir participer aux activités politiques au niveau de la commune de tu es jeune tu as le temps donc il faut venir commencer donc au niveau de la partie ma ko teguma ci donc j'ai plongé replongé aussitôt commencé au niveau de la commune de faire ce qu'on appelle du travail à la base travail à la base ils étaient là bien avant l'élection euh, l'arrivée donc du président à la magistrature suprême ma fait que fi ànd ak ñoom di wolof dafay faral di wax naan bu nee nit baax na ndax mbokk yaa ko wax ko du juuf ay xaritam ya muy liggéeyandool ak ñi nga xam ne ñoo ko jiite ci wàllu politique ay mbokkam ak ndaw yu muy àndal di liggéey am na kàddu yu ñu tàbbal waaw dama ñëwoon tey Mbour pour honorer sama invitation suma xaritu bop suma rak makodou Diouf nga xamné suma collègue la euh, li waral nak ma ñew moy dama xam aussi pas-pasam euh, ci dimbali président de la république ci soutenir président de la république té yémul fi rek mbour ndax gànjaay bu mu cosaanoo aussi euh, yéen gogou la fa am té diko ko liggéey aussi ak ay responsables politiques yi fa nek donc c'est quelqu'un qui mérite que ñu soutenir ko ñu wone tamit euh, yéene bu mu am pour dimbali président euh, suñu teewaay fii nag loolu moo ko indi euh, ma ko may rafetlu nag mobilisation bi ma fekk parce que vraiment dal na xel Mbour di département boo nga xam ne xam nañ ni ancrage am ci Benno Bokk Yaakaar am na doole mais képp ku ñëw rek pour gën a renforcer loolu day gën a dalal suñu xel parce que li ñu bëgg mooy au soir du 24 février euh, ñu am ndam bu rëy fekk vraiment benn benn débat du ci du ci am te lu mel nii moo koy indi vraiment donc euh, man loolu laa amoon pour euh, pour wax la pour sama li ma war a teewal fii. da nga réussir loo xam ne am na ñu la njëkk si parti bi liggéey bi sax liggéey bu am solo te léeg-léeg ñu am jafe-jafe réussir li nga réussir mooy nga xewle woo responsable ñoom ñëpp ñu ñëw. te boo leen gisee ni ñuy ñëwee xam ne dañuy ñëw avec le cœur dañuy ñëw ak xol bu ubbeeku dañuy ñëw ak yéene loolu nag jikko moo koy may sa jikko moom moo rafet yaru nga tey nga yaatu nga te xam nga li nga bëgg te yaa ngi koy def ak fulla ak fayda te loolu moo am solo kon Pape ñu ngi lay félicité man bi ma ñëwee fii léegi gis nit ñi ni ñu bare wax dëgg yàlla euh, maa ngi lay félicité place bii wul ñu fi woote parce que place bi dafa yaatu waaye yow nga ñëw taxaw woote fii mu mel nii mu mel dañu lay félicité jaajëfal la bu baax a baax ñaanal la si yàlla yàlla na la jik euh, félicité aussi ñi nga xam ne ñoom nga àndal parce que olof Ndiaye nee na benn loxo du tàkk sër donc lii bu amee mooy am nga saf bu baax. El Hadj Malick Mbodj cousin Pape Makodou Diouf. Euh, lan nga xam ci li xam si moom suñ ko doon wax tey ba suba du jeex parce que ñun nim ñu jàppee rek vraiment mënuñ ko fay ci lim ñuy defal waxuma ñun ñun ñun ñim dëkka de waxuma ñooñ mais ñi si biti moom waxaalewuma leen maanaam taxawu nañu vraiment li muy def si ñun daal saa yi mënuma la ko wax baax na baax goo xam ne jéggi na dayo ndaw ñi jigéen ñi maire ñi ñëpp kontaan si moom ci li muy def vraiment dañ koy ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na fa àgg jàmm barki Seydina Mohamed. waa Pape Makodou Diouf li ma xam ci moom bëri na eh, ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa parce que sant yàlla a sant sabab ab Ablaye mbay moo ma jël indi ma ci loxo Pape teg ma ci loxo Pape te bi ma jëlee teg ma ci loxo Pape boobu ba léegi rëccu ma ko. parce que li ma doon wóor li ma jafe woon moom laa am ndaxte ku ma xam xam ne président président de la république Macky Sall moom laa gëm moom laay nooyee ma nekkoon ci parti bi bu njëkk demaat ba toog jàpp sama morsu njàmbur ba ñu ma président de la république Macky Sall mais dama dem ba gisatuma woon sama bopp ci parti bi yàlla dafa def Pam Codou Diouf ñëw Ablaye boole ma ak moom ma gis ak moom bi ma ko déggee téléphone bi ma ko déggee téléphone la léppam doy ma. bi ma ko gisee la gën léppam gënaat maa doy mu ne ma Thierno xam nga lan laa bëgg ma ne ko loo bëgg mu ne ma lenn laa bëgg mooy développement département de Mbour développement Sénégal laa jiital rawatina développement département de Mbour Pape bi mu ñëwee mu ne ma développement laa jiital dama bëgg jàppale femmes yi dama bëgg a jàppale ndaw ñi parce que ñoom ñooy yor kër yi ñoom ñooy jàppale suñu waajur yu góor yi kon dama njëkke si jigéen ñi suma paré paree ma dem ci ndaw ji te ni ko waxé won bo ba légui yaakaar naa département de Mbour mun ñoo cédé domou ganjay bi day bokul ci politique yi ñu naan toto tap paté ndax ci atum 96 97 la am bac série AB 97 2003 mu am maîtrise géographie ci UCAD 2003 2004 mu dem école normale supérieure am li ñu naan KM euh, certificat d'aptitude à l'enseignement moyen 2004 2007 mu nekk professeur au lycée Babacar Kobar Ndaw bu Kaffrine 2007 2009 mu dem nag école nationale d'administration ñu duppee ko ENA booba ba léegi nag moom inspecteur des impôts et domaines la waaye ñu ci pàttali tamit def na ay master yu bëri ñu jàpp ne nag mbuur am na gan gu jara bàyyee xel ndax kat la nga gis raw na fuuf la nga dégg te kii kat lu mu wone wone na doole wone na xarañ ci